loi d'amnistie xam ngeen ne lu ni mel euh, dina mën a tax ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi leen doon topp ci wàllu yoon atum 2021 jàpp atum 2023 euh, ñu daal di leen di féexal ñu ñibbi seen ak njaboot loi bu ni mel itam euh, bëri na ci ñoo xamante ni itam am nañ ci ay gis-gis yu wute ci bilee reportage daañu leen diktal seen i ay kàddu du Fall ak Amadou Ba lañ ci àndal tàggat yaram itam daañu ko waxtaanee ginnaaw itam réew bu Sénégal bi mu doon laale ak itam Colombie juróomi bal ci ñett la boobule match daal di tëree mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di euh, coupe du monde euh, but choqueur jàppale ni itam gaynde yi football ci tefes gi daa ñu amal seen ñetteel bi euh, match de poule ñaar fukki fan ci weeru février wi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal suñu diggante ak réew bu Japon lay doon mbokk yi tënk yaa ngi bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikkuñu ñu faram fàccee moom ñetti fan ci weeru mars bi ñu dëkkmal la ñu bëgg ñu daal di amal li nga xam ne nag moom moo di euh, élection yi élection présidentielle bëgg-bëgg euh, bu Malick Gakou moom itam njiit bu grand parti dikkaat na euh, ci lu ñu dippee double nationalité la mu xamle moom moo di nag amul beneen ab nationalité bu dul nationalité sénégalaise tey jii mi ngi doon janoo ak way taskatu xibaar yi ñu teelu reportage bu abi fay ñu bëri naan Malick Gakou dafa am nationalité loolu bu amoon dinaa jomba taxaw ci kanamu Sénégalais yi naan leen dama bëgg a réew mi ndaxte xam naa ne pour jiite réew mi danga nga war a am benn nationalité mooy nationalité sénégalaise man nag mosuma am benn nationalité bu dul nationalité sénégalaise. man Malick Gakou ma ne ne man day nekk naa en règle avec impôt suñu dëkk parce que impôt dafa am solo parce que impôt nag mooy réew mi premier ministre du baax bi nga xam ne nii moo jiite gouvernement bi. maa koy lancé un défi tey ji ci ngoon na wane ne moom Amadou Ba candidat légitime la maanaam Amadou Ba na wane ci fiscalam ci loolu nag moo tax ñun ñu proposé coalition Gakou 2024 ne élection bi dañ ko war a tenir le dimanche 3 mars 2024 premier tour deuxième tour bi egg le dimanche en mars parce que incontestablement s'il y a un deuxième tour foofu rek la ko mën a def pour que au plus tard avant la la fin du mandat du président le deux ñu am président bu bees ñu mën ko defal passation ci anam gu mu gën a rafetee à notre charte fondamentale ak conformément ak li nga xam ne moom la réew mi aywa mbokk ñu des ba tey ci lu soxal wàllug euh, politique jàppale di nag euh, dialogue bi ñu bëgg aw euh, prox ndoll la woo xamante ni dina mën a tax ñenn ci ñoo xamante ni am nañ ay jafe-jafe wala boo ko jafe-jafe réew mi ñu mën cee waxtaan daal di xool itam lenn ci loo xamante ni ay saafara la lu ni mel bokk na ci kàddu yoo xamante ni nag waa Front démocratique pour une élection inclusive ñoom ñoo ko daal di ay yëkkati ñoom ñooñe nag xam ngeen ne bokk nañu ci ñi féete ci ku jéggi lu ni mel daal di dajale ñenn ci ay candidats yoo xamante ni euh, samp nañ seen lënd ci élection présidentielle atum 2024 leneen lu ñu wax itam euh, bokk na ci ne dina jafe ñu daal di amal élection yi euh, fekk ñaari fan ci weeru avril wi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal moom Mamadou Diop Decroix ak i ñooñam xam ngeen ne ñu ngi doon janoo ak way taskatu xibaar yi niki tey jile ay wax ñu àddu ci tàggat yaram maa ngi leen ko doon junju uh, but choqueur maanaam uh, footballu uh, tefes gi réew bu Sénégal da doon laale ak itam Colombie juróomi bal ci ñett la leen match daal di tëree gaynde Sénégal yi daal di jël li nga xam ne nag moom moo di ndam loole waaye jàppale ne li nga xam ne nag moom moo di ñetteel bi match de poule bi daañu ko amal ñaar fukki fan ci weeru février yi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal suñu diggante ak itam réew bu Japon la ñu ko fas yéene amalee xibaar bu ni mel dikkaat nu mu gën a yaatoo. aywa ñu àddu ci ñaareelu pàcc xibaar yi xam ngeen ne bokk na ci actualité bi ñuy jagleel euh, région yi tey jilee daañu waxtaanee li nga xam ne nag euh, moom moo di euh, njaayum sobleek mbay mi xam ngeen ne door nañu ko ca Potou nekk ca localité bu ñu naan nekk ca commune bu ñu naan lew na département bu Louga foofee nag jàppaleen ne lu soxal witt gi door nañu ko bu baax baax waaye aji jëfandikoo gi la ñuy àddu mu di nag wàllu njëg li bëgg nañ ñu daal di koy wàññi ba mu daal di tolloog li nga xam ne moom moo di seen ak Gafaga Thierno Fall reportage. liggéey bi mi ngi doore fii ci tool yi nga xamee ni ay ndaw ak ay jigéen ñu takku ñoo fi nekk di buddi ak sol soble si ci ay saaku lu ni mel di wone ni nag campagne de commercialisation bi moom daal dinañ koy door fii ci diwaanu Potou ak li ko wër. maa ngi dagg soble waaw fii ci toolu Mamadou Ka waaw ñu dagg soble wax dëgg yàlla Mamadou jàmbaar na la jàppale nañu jigéen yi ñun ñooy jimbar soble ñun ñoo koy dagg. wax dëgg yàlla kontaan nañ si moom lool ndax dañoo toogoon rek amuñu liggéey. ak fi mu toll si waa isaan ñi ñu ngi toll si bu dee dagg yooyu de waaw ñu wax dëgg ñu ngi liggéey moom waaw te xaw nañu yàgg ñu nekk benn encore waaw dañuy jàppalante bu liggéey commencé ñëpp dañuy ñëw jàpp si affaire bi. c'est man maa ngi saggani tey ci toolu Mamadou Ka fekk naa fi ñi employé yi ñu ngi dagg soble bi. jigéen ñi ak ñii ngee dagg ñii ngee buddi ñii sol depuis ñaar fukki fan yëpp ci la ñu nekk di dagg ak di sol bu ñu jógee ci tool yi fii ci centre de regroupage bu Potou fekk nañ fii ay stock yu bëri ak ay camion yu taxaw di chargé ngir nag jaayi soble bi ci biir marché yi réew mi. ngir nga pàkk fi nekk démb léegi man maa ngi chargé oto yaa ngi chargé ndax bëkk dem fi mu nekk waa jawbe yi jënd nañu fi ñaari ko pour dem jawbe ak ay Kaffrine ay Koungheul Kaolack Touba. quantité bi nag fi mu nekk moom dix mille cinq cent dix mille deux cent cinquante waaw saako waaw vingt ci marché central bu Louga li ñu nemmeeku mooy soble si mi ngi fii wàcc si ndànk-ndànk ñii di consommateurs yi di ànd ak mbegte ak xel mu dal ndax ñoom dañoo jàpp ni daal prix soble si dina gën a wàcc. fi ma toll nii waa soble mbay bi moo gën a yomb soble tubaab bi. beneen bi soble tubaab bi euh, cher na euh, prix bi metti na. mais actuellement nii ñoom ñi ngi jaayee ñun ñi ngi jëndee ci ñoom euh, ci marché bi 800. Euh, beneen euh, soble mbay bi doog a génn moom tam ñu ngi koy jëndee 600 francs parce que fekkente ne yaa ngi doon jëndee kilo amparta euh, bi 1000 francs wala 800 bii ñëw di génn di jaay ak 400 450 loolu xiiwal ci borom kër gi su ko defee bu jaaykat yi naa gis boppam borom kër gi mën naa gis boppam te seen yëpp ci la ñuy yëngatu. bu ñu sukkandiku ci li ñu gis ci tool yi ren ji mën nañu jàpp ni production soble bi dina bari lool looloo tax ba ñii di baykat yi di sàkku ci nguur gi mu teel a jóg ngir organiser marché bi ba ku ne mën a jaay gis ci sa bopp. bu nu àndee ak waa Indien yi agribusiness yi ànd ak waa Mali ubbi seen frontière nu itam nu ubbi nu ubbi suñuy tool du ñu am dara ci tool yi il faut ñu dimbali gouvernement dimbali ñu daal gën ñu sécurité marché bi ba nga xam ni baykat daan ci seen bopp am ñoo ni muy eh, njeey gros business yi nga xam ne ñoo bay soble yi ñoom li ñoo béy dafa bare daanaka réew li ñoo béy soble léegi Sénégal mëntu ko lekk il faut bu ñu ko organiser wu rek ci suul rek lay mujj. campagne bu ñeel commercialisation soble mbay mi daal di nañ koy door fii ci diwaanu Potou lu ni mel nag ànd ak yaakaar bu nga xamee ni si askan wi am nañ ko ci yokkuteem mbay mi ak itam njariñ lu muy jural mbooleem ñi nga xamee ni rek ñu ngi ci yëngu di ci daan seen doole. aywa xibaar wu neex wu yitteel ña yeewoo ca kër Martin ñenn ci Samba Boy ya fa nekkoon jot nañ leen teen uh, teg loxo ñi amal lu uh, di mel uh, di gendarmerie Bafa ndax bëri na si seen ay jur yoo xamante ni booba ak léegi ñu ngi leen sàcc waaye jàpp leen ne itam ñooñu ne defkat ñaawteef ñu ngi ci loxoy yoon u seeni Diop Habib Seck reportage. mi nekk ci dëkk bi di Kër Martin ne ci commune bu Gandon daal di ko mën nañu nokki ay fan ak ñile ñuy def ay plainte di ko yóbbu ci gendarmerie ci ay xaar nag ak bëy yoo xamante ni koy sàcc tey jëlee nag ñooñu nga xamante ñoo doon def ñaawteef bu leen di teg loxo gendarmerie moo def liggéey bu ni mel muy ki nga xamante ni moom lañu jiiñ muy sàcc bi ak ñaar ci ay chauffeur jur gi mënuñu génn bu ñu génnee rek saay saay xaar leen ci àll bi jàpp rendi mais booy sàcc boo ko jàppee nga yóbbu ko tey ci yoon balaa ma mat weer nga gis ko muy taxawaal muy defaat la ma doon def je pense nag affaire bi ah, bande la parce que ay oto yoo xam ne ay oto yu bees tak ngay gis ñu dugg ci àll bi nga yaakaar ne ay yeneen la ñuy dox fekk ay sàcc lañu. ñoom seen i gis-gis téeméer ak juróom fukk ci ay bàyyi ma daanu ko kenn gisatu ko ñi nga xamante ni teg nañ leen loxo ñoo ngi leen di jiñ ni ba yi nga xamante ni gis nañ ko ñu rend ko ñoom ñoo def ñaawteef bu nu mel moo tax seen gis-gis yoon dafa war def liggéeyam. 150 euh, jur rey na rend nañu ko fii léegi nag lu ci lu ñu sàcc bu ñu jàpp léeg-léeg dañu fi jàpp sàcc bu ñu yóbbu gendarmerie balaa ñuy yegg kër gi ñoom ñoo ne jiite seen kër. ci seen i kàddu jafe-jafe bi nu mel li ko gën a indi na ci ñàkkum courant ndaxte dëkk bi lay dafa lëndëm kurus. diggi bu ñu jógee ci tali bi ñuy ñibbi suñu kër munuñ sax gis suñu tànk yàlla xam na ko dañoo jeggi jaan yi di dem amul lamp amul dara leen dem kurus. ku jur bu la fekkee la dëgg nag yàlla ko moom kenn moomu ko dañoo bëgg sàcc yi ñuy jàpp. nañ leen teg ci yoon yoon war def liggéeyam ñu ngi koy rafetlu nag ñu ngi ci am yaakaar bu baax. ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk ci Kër Martin rafetlu nañ liggéey bi nga xamante ni gendarmerie def na ko waaye nag nee nañu kii di sàcc bi ak ñi nga xamante ñoom la àndaloon force yoon def liggéeyam te nu mu waree. kalo bon am nañu ko buur bu yees ginnaaw itam fukki at yoo xamante ni nag amuñu buur ci la jamono ki nga xam ne euh, moom moo di euh, Kujjo Sobo Sambu euh, moom moo toog ci li nga xam ne nag moom moo di jal bi bëri na itam ci askan wi ci loo xamante ni nag ñu ngi koy xaar ci moom ay jafe-jafe yoo xamante ni war na cee mën a indi ay saafara duñ ci sori ñu teewlu reportage yi nga xam ne Lamine Ba ak Lamine Mandian ñoo ko amal. Kalabone am na roi bu bees ginnaaw bu mu toogee fukki at yi xam ne nag gisul roi esprit yi nag tànn nañ ak ki xam ne nag moom Kujoo Sobo Sambu moo war a jiite nag li nga xam ne nag mu nekk ak nouvelle bi xam ne nag andi na ci xool ñi cette intronisation euh, représente un ouf de soulagement pour Euh, le royaume de Kaolack. wax daal mooy waa Colobane am nañu mbégte loolu ginnaaw bu ñu toogee fukki at nga xam ne nag gisuñu ab roi képp ki nga xam ne yaa nga yeewootee Colobane mbégte bu rëy nga am sa xol tey Colobane am na li nga xam ne yàgg na koo wër li ëpp fukki at ya ngay wër roi waaye tey lañ ko mujjee am loolu nag doon gëneel bu baax a baax ci royaume bi dana tax ba royaume bu Colobane gën a wéyal li nga xam ne moo tradition yi ko xamee. en présence de ce nouveau roi. jamono ji nag tradition baa ngay wéy ci royaume boobu nga xam jàpp nañ ne bokk na ci royaume yi gën a d'après l'histoire, Calobon, d'après l'histoire, Euh, c'est un ancien royaume. et donc à compter de ces rois. Kalabone li ma leen mën a wax daal mooy royaume bu yàgg la boo jëlee biir kaasa bokk na ci royaume yi gën a yàgg ci lim bi royauté bi dooree ci Kalabone ba léegi kii mooy fukk ak juróom ñetteel roi bi nga xam ne Kalabone am na ko loolu nag boo seetloo ci taarixa bi mooy royaume bi njëkk bi nga xam ne am na roi yu toll ci lim boobu ci tënk daal mën naa ne royaume bu yàgg yàgg la. quelque sorte je dirais que par conclusion ou par ricochet nous dirons royaume qui est plus ancien que beaucoup d'entre d'entre euh, les royaumes de Soy. Kujawso boo sàmm jamono ji liggéeyam nar a doon fexe ba gën taxal diggante ci biir royaume bi waaye li ko weesu fexe ba féetalee dëgg ci li nga xam ne mooy doxalinu société bi waaye tamit li nga xam ne mooy tradition bi mu bàyyi ci xel. Les populations savent la mission euh, que le roi doit mener au sein de son royaume mais aussi au-delà même de son royaume. Donc l'ambition principale du roi, c'est une mission transversale. l'ambition principale. askan wi nga xam ne mu nga yeewoo fii ci Kalabone xam nañu njëriñu roi ak taxawaay bi nga xam ne moom lay am ci biir société taxawaay la bi nga xam ne nag ñëpp ci gis seen bopp taxawaay bi muy njëkk am mooy féete ba dëgg dox ci biir askan wi loolu nag ba ma koy wax damay xalaat liggéey bi nga xam ne moo ngi koy xaar mu jëm ci wàllu rattaxal diggante yi waaye ñi nga xam dañuy jote mu àtte leen ci dëgg léeg-léeg fitna mën naa dox diggante village yi waaye nag moom mooy am taxawaay àttee mbir mi ku am dëgg mu jox la ko ki ñu war a teg si yoon tamit mu yégal la ko. waaye tamit roi bi léeg-léeg dana dem ba intervenir ci biir ak couple dana la taxal diggante yi defaraat ñi nga xam ne dañoo jote roi bi am na beneen taxawaay mooy fexe ba jàppalante gi maanaam solidarité gën a fës ci biir royaume bi li ko weesu nag am na beneen taxawaay bi nga xam ne ràññee nañ ko ci roi bi mooy tey jamono ji boo seet ndaw yi dañuy demal seeni bopp ba léeg-léeg loolu dafay faral di jur fitna moom nag dafay jog ngir xeex lépp li nga xam ne dañ koy tere ci biir société bi képp ki war a dund ci biir royaume bi dangay ngay dëppoog yi nga xam ne moom lañ fi lal te loolu roi bi moo am responsabilité saytu ko. et euh, à la fin de la stabilité socio-économique de son royaume. askan bi nga xam ne ma nga yeewoo ci kàlla bon nag rafetlu bu baax a baax bu bees bi nga xam ne am nañ ko ñu amee yaakaar ne nag li nga xam ne moom dana ko indi dana jur ngëneel ci seen doxalinu société bi. aywa mbokk yi egsi nañu ci ñetteelu ko pàcc xibaar yi xam ngeen ni daañu leen fàttali li gën a fës eh, ci li nga xam ne moom moo di ayu bés bi bokk na ci bataaxal wi nga xam ne nag ñaari njiit yeewoon ñoom ñoo ko daal di xaatim eh, moom maître Abdoulaye Wade ak itam ki nga xam ne moom moo di du juuf ngir waxtaanee li nga xam ne eh, moom moo di tolluwaay wi fii ci réew bu Sénégal fitna wi nga xam ne moom la ñu fi nemmeeku ñuy dànkaafu ndaw ñi ñu jëmmal lépp lu soxal wàllug jàmm bañ a yee fitna ñi féete ci langu politique bi tam bokk na ci seen ay kàddu moo di nag euh, ñu def kéem kattan di bàyyi xel bu baax a baax askan wu Sénégal bataaxal bu ni mel moom Mamadou Fall moom moo ko daal di euh, laqarti ngir ñun. addu jàmm la ñu yëkkati ngir nag dajale mbooleem réew mi ñu doon benn waaye respecté li nga xam te ni moo di suñu euh, charte bi di constitution waaye itam ni tubaab duppee état du droit ngir moytu rek suñu réew mi dugg ci guuta boo xamante ni kenn du xam fu ñu jëmee te kenn du mën a xayma bu boobaa li ñuy ñàkk ci doomu aadama. ki fi newoon njiitu réew maître Abdoulaye Wade fekk ci keneen ki fi nekkoon itam njiitu réew di Abdou juuf ñoo sàkk kon ab toog waxtaan boo xamante ni dañ koy lal ci dëgg boole ci ñëpp loolee kon nga xam ni moom la Macky Sall yëkkati ngir woo mboolem classe politique bi ñoom ñaar ñi fi newoon njiitu réew daal gis nañ ni war nañ ko wuyu fekk ci itam société civile bi war na wuyu ñu dëkkmal li nga xam ni moo di élection présidentielle yu mu jàpp fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci atum 2024 ñu mën koo amal kon ci ak conditions yoo xamante ni dana leer ñëpp bokk waaye du am benn werante Diouf ak Wade ne li am solo mooy fexe ba sàmm suñu démocratie romb lépp li nga xamante ni moom la ku nekk jàppoon ci dënn yi ci waay classe politique yi te jiital rek Sénégal mu nekk daal intérêt bi gën a mag ci ñun maanaam Sénégal di suñu réew ñun ñëpp ñu fàttali nii malgré nag ñoom seen weccoo wala sax euh, seen ñàkkoon ànd ci gis-gisu politique ak li nga xam ni moo nekkoon seen adversité bi amoon seen diggante teewul woon dañ daan toog di waxtaan euh, ci bu ko laajee teg ko nag ci ay termes yu leer a leer ngir mënoon génn ci li nga xam ni moo di crise politique yi Sénégal nemmeeku leneen lu ci gënoon a fës euh, bokk na ci aw mission diplomatie euh, euh, parlementaire dikkoon fii ci réew bu Sénégal ki ko jiite di président bu parlement bu CEDEAO waaye jàppale ne ki nga xam ne moom moo di président bu assemblée nationale moom amadu maam Diop moom moo leen rek daldi di tertu naka noonu itam la doon seen ak yitte bokk na ñu def kéem kàttan xool nan la ñu def ba daal di génn ci guuta gi nga xam ne réew bu Sénégal ci la nekk Fatoumata Ndiaye membre la ci boobule ngi teewlu ay doom ci micro Maïmouna Ndiaye. ñaari fan yii yëpp ñu ngi gis nañ président yi am am assemblée nationale Sénégal gis nañ ñëpp ñu nga xam ne bokk nañ ci élection Sénégal ñiiñ validé ñiñ validé wut ñi oote am discours bi ñoom ñëpp. wax nañoo ñoom gis nañ leen léegi ñun lu ñoo oote rek mooy jàmm am biir Sénégal parce que Sénégal bu mu sosoo bañ tey 4 avril 1960 jàmm rek moo fi am dañ di am élection yu leer élection yu set élection yu óor léegi nag bu buñ toog bañ ñëw tey pour am 24 février élection bi loolu war a mun a génn Sénégal sénégalais liñ la a ñaan mooy ngeen waxtaan parce que yépp si waxtaan la tey dégg ngeen suñu président assemblée assemblée CEDEAO assemblée bi oote na wax na ñim gis ñëpp wax na waxtaan bi ak ñim fi tegoo mu ne semaine buy ñëw nii buggaat na ECOWAS commission ak ECOWAS parlement ñu defaat beneen délégation ñu ñëwaat ñu waxtaanaat ak waa Sénégal pour jàmm am waaye lu ñu bugg mooy ñu respecté constitution yi Sénégal bi respecté li loi bi wax respecter élection bi pour élection bi mun a am si jàmm ak salaam ak mu am si nim gën a mun a gaawee loolu moo ñu fi indi woon ñun ñëwuñ pour farfaral kenn dégg ngeen li wax recommandation yi mu wax mooy pour sénégalais yëpp ñi bokka ñi bokkut yëpp ñu toog ñu waxtaan aywa mbokk yi bu ngeen di euh, fàttaliku ci yeewule élection aw décret woo xamante ni njiit bu réew bu Sénégal euh, fësaloon na ko ñu toxal élection yi ko euh, ci fukki fan ak juróom ci weeru décembre yi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal waaye jàppale ne alxemes wi ñu weesu conseil constitutionnel beneen ab dogal boo xamante ni daal koy génnee loolee nga xam ne itam moom la njiit bu réew mi bëggoon ñu mujj ko seeyal jàppale ne conseil wu sept charge yi nag la tax itam mu daal di dëggal boobule dogal bokk na ci principe bu sécurité sécurité euh, juridique daal di tënku itam ci li nga xam ne moom moo di article euh, trois jëm itam euh, ci li nga xam ne moom moo ay jëmmal li nga xam ne moom moo di calendrier électoral bi fii ci réew bu Sénégal ci aw tënk jàppale ne nag dàqub élection yooyu nag ci fukki fan ak juróom ci weeru décembre loole lañ ne nag mënta nekk ndax itam njiit mu réew mi dina dépasé app wi nga xam ne nag moom la ñu ko àppaloon ñaari fan sax ci weeru avril mu war a joxe li nga xam ne nag moom moo di lénge yi loolee bu ñu rek faram li nga xam ne moom moo di bataaxal boobu les conseil constitutionnels euh, daal di euh, xëy euh, fësal ni kii alxemes aywa ñu àddu ci euh, ñetteelu pàccub xibaar yi xam ngeen ne daañ ko jagleel gëstu wi gëstu wi tam euh, daañu taxaw ci euh, loi d'amnistie xam ngeen ne lu ni mel bëgg nañu daal di féexal ñenn ci ñoo xamante nii ñu ngi leen doon topp ci wàllu yoon ci atum 2023 jàpp atum atum 2021 jàpp atum 2023 dogal boobe itam bëri na ci ñoo xamante nii daal nañ ci yëy yàbbi waaye ay kàddu wala bokk ay gis-gis yu wuute Mamadou Fall Amadou Ba reportage amnistie dafa yokk lu dul impunité loolu la ko ñenn ñi jàppe ñenn ñi nag gis ni day maye dal rek fexe ba réew mi génn ci guuta gi nga xamante ni xëy na moo koy yor Sénégal nag jaar ci wotu loi yooyu yu bari yoon ngir kon juboole waat li nga xamante ni ñoo di acteur politique yi amnistie moo di faase lépp li nga xamante ni nit ki def na ko ci crime ci diir gu ñu natt booy fàttali ko loi 1976 moo faase woon li nga xamante ni mooy condamnation ñu tegoon ci Mamadou Dia 1991 di conflit bu Casamance 2004 ñu doon wax loi Ezzan muy loi wu ñu woteeg ñaxtu gu bari. parce qu'elle consacre l'impunité le peuple sénégalais dans sa majorité est contre. je ressens une profonde tristesse devant le vote de cette loi j'ai demandé son retrait c'est une loi qui a divisé le pays. il s'est avéré que la loi était opportune et qu'il fallait la aménager la rendre plus intelligible voilà la grande fierté que j'ai ndaxte ñaar fukki après mën nañ taxaw di nangu ab loi si ci ay événements yoo xam te ni xew na ci Sénégal société civile jàpp ni faaw ñu def nànk. xam nga dam loi si dañ ko war a gis ba pare soog ci wax parce que ni si dafa war a viser ay faits yu leer ci benn période bu leer warul viser ay personnes alors loi si bu mën a indi jàmm mën nañ ne waaw. bu mënee indi jàmm parce que ay procès politique moo amoon ñu jiiñ nit euh, jaarale ko ci politique tëj leen mun nañ na waaw. directeur de campagne Diomaye 2024 moom dafa catégorique nee na du ñu wax sax ay waxu amnistie nekkul à l'ordre du jour. or loi bi ci boppam ak contexte bi mu biñ koy waxee. Euh, montre simplement que ay divertissement la maanaam président boo xam ni euh, mi ngi bëgg yàqat déjà euh, rusloo Euh, justice plusieurs fois defloo na justice yoo xam ni waru ko def euh, bii aussi euh, indiwaat benn projet de loi boo xam ni jeexital bi dañ gis ni c'est pas pour rendre justice mais pour tout simplement gérer moom ay feemu politique am c'est c'est c'est des tactiques c'est des stratagèmes te dara baaxu ci. bu ñu jéem a cultiver li nga xamante ni moo di impunité ci réew mi. mbooleem crime dañ ko war a juger. loi si waruñu ko utiliser comme prétexte pour effacer ay crimes financiers ay mbuxum yu rëy yoo xam ne am na fi at yi ñu weesu bari na ay mbuxum yu ñu fi ay rapport génn yu bari dañ ci war a def indi leeral. moonte day loi Ezzan dañ ko adopté woon ba sax ñenn ci ñu tegan yoxo ñu bàyyi leen di fàttali. président bu groupe parlementaire libéral boo woon. loi Isidore Ezzan moo doon quatre wala cinquième loi bu am ci Sénégal bu ñu bu ñu bu ñu amnistier ay faits ba ci les faits qui ont eu lieu dans la Casamance et qui ont fait beaucoup de morts. dañ ko amnistier. les lois d'amnistie dans les république très souvent mu ngi am au lendemain d'élections et principalement pour réconcilier, pour réconcilier une nation ci lenn dajalewaat. watu loi dafay indi jeexi jaaxa ñii nangu ñii di bañ saasu su ne bu ñenn ñi gisee nii xëy na lu positif la ñeneen ñi moom jàpp ni luy nasaxar réew la jaajëf euh, Mamadou ñu sant ko bu baax baax euh, gërëm ko mbokk yi itam na ko noonu des leen di wéy ba tey ak programme bu télévision Futur Média léegi léegi Sara Cissé dina fi teew jukki leen xibaar yi euh, ci français ba itam ma jox leen daje ni ki ëllëg incha allah yem ak altine dinaa fi teew jukki leen di gën a fës ci li yéen kaay di fësal ci seen émission info matin lu mooy loole ñu leen di ñaanal jàmm mbokk yi ñu fanaan jàmm.